waaw li sabab xew-xew mooy nag liggéey bi ñu nekk comme ñu yëngu ci éducation et formation euh, muy daara jàngal nit ki alxuraan ba mokkal ko waaye jeetu benn organisation boo xam ni dafay jàppale daara yi waaye di soññee ci ñu gën a améliorer condition vie ak programme yi moom ñu mu daara bi war a def nag tey euh, seizième promotion ndax existence u daara ji xaw naa yàgg ndax ñu ngi ko créé le 2 février 1996 tuddee daara Cheikhul Khadim pour la mémorisation de l'éducation tey nag muy 16e promotion bi nga xam ne bu ñu amee xale bu jàng alxuraan ba mokkal ko dañuy woote parents yi ñëpp ñu bokk daje ñu waxtaan ñu tari alxuraan ñu wanee ni ñu mokkalee waaye it ñuy développé beneen programme boo xam ne xale bi bu jàngee alxuraan ba mokkal ko it am na possibilité wu euh, cycle primaire mu jàng ko ci ñetti at. loolu it gis ngeen discours français yi nga xam ne xale yi tëndir nañ ko ak li ñu doon xamal ci suñ diine loolu ñi nga xam ne ñoo mokkaloon daaw daaw jéeg ñoo ko doon def kon daay tey ñu tajale tey ëmbaale it daara bi nga xam ni AGF moo ko daan organiser chaque année am ci partenariat ak Daara Cheikhul Khadim nga xam ni tey bii mooy septième édition bi nga xam ni mooy ba noppi ñu boole ci di lancé waale le grand prix euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul pour le cinq Coran ndax Daara Cheikhul Khadim dafa yàgg liggéey ci loolu ay ata a ngi ni mu di ko xalaat ba ren nag mu ni bala fee génn mook partenaire am bi nga xam ne mooy premier partenaire am Lamp Fall danañ daje waat ak journaliste yi daje waate waa Sénégal xamal leen liggéey bu rëy biñ bëgg def ngir lan moomale ko sëñ Tuubaa mi nga xam ni moo waxoon ni eh, bi xidmatil quraani wal xadiisi yasbutullah bi dahabin mawrusi al man sama ndono ci alquran rek la moo waral ñu xalaat grand prix bi daar Seexul Xadim woo ci Lamp Fall muy suñu premier partenaire waaye nag di ci woo ñëpp ndax loolu Sénégal gépp ko moom alxuraan la te Sénégal kon gis na eh, ni ko ni ko alxuraan def concours yi bari na fi lool te lépp pour eh, alxuraan la moo waral bii nag ñëw ba war a tegu ci yooyu dañ ci indi yeneen détail loolu daal mooy bis bi mooy lan journée de daara 16e promotion Daara Cheikhoul Khadim ak lancement wu nag le grand projet euh, concours international Cheikh Ahmad ba Khadim Rasoul le grand prix Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul pour le Saint Coran waaw loolu la boo gisee journée daara bi ACHEF daan ko organiser loolu la ci ndax dafa doon nekk barabu rencontre ndax tey may may na leen yéen ngeen tegal seen bopp seen bët ndax tey buñ dee wax ne daara dañoo jàngale wut wala daara yi dañuy yàllawaan dañuy taxawalu loolu lii moo koy weddi adduna doo weddee ay wax da ngay weddee ay jëf ñun bañ tàmbale ba léegi loolu la ñu def ndax journée daara bi ñu ngi ko jëkk def 2007 def nañ ko fi ay quelques fois def nañ ko it CICES 2010 defoon nañ fi une grande journée bu mag a mag ba gis nga ko daaw daaw 2019 lañ ko mujj def ba ren ji lañ ko defaat maanaam mooy lan li ñuy def ak li ñuy wax nit du am réew boo ci bokkee man li ñu li ñu jàppee un citoyen modèle mooy koo xam ne doo nekk di wax waaye da ngay dem jëfi ndax loolu mooy tax réew mi ñu mën koo changer discours yi lu mu rëy rëy te jëf yi maanaam bokku wut li ñuy wax dara du jag te loolu kilifa ak diina gu mag sëñ Mbay Jaxate da koo kon nii bu lëf desul lu dul li wax ku dee di wej wejee ka wax te kenn du def ca la mu wax dara li lay ñàkk xorom kuy wax nga faf ni egg na buy jëf nga faf ni alku na wax yi rafet na yéemu na te jëf yi doon lu ñu gëm ñu nag loolu la ñu bañ mu dal ni moo waral ñu indi tey waajur élèves yi nga xam ne ñoom alxuraan da leen a waaye ñu ay citoyen seen doom jaral leen dara ndax ñoom ñoo tax ñun prise en charge suñu mën ko def maanaam li tax tey benn suñu benn xale du waajur yi ndax prise en charge bi nga xam ni moom la ñuy nangoo def ci seen doom te loolu responsabilité boobu ñoom la ko yàlla gàll ndax yonent bi sallallahu alayhi te bu ëllëgee la nga doon sàmm danañ la ko laaj te sàmm ci xale bi rek ki ci jiitu mooy waajur bi moo waral ñun buñ boo gisee AGEF ak daara ñu man li mooy suñuy xale duñu yalwaani di nekk fu set di mokkal leen fa bàyyee ñu mën jàng cycle primaire bi en trois ans loolu boo ko déggee mooy daanaka programme daara moderne bi ñun dëpp koy wax lañ ko tàmbali bu yàgg kon loolu la ñuy wane tey pour wane ni Sénégal benn bopp la mu koo xar ñaar nañ yërëmante dimbalante ñi ngi lancé un appel xam ni wala dafa am lu ñuy wax fu jàmm yendu maga fa xam lu mu kon nañ gën a dolliwante suturalante jàppalante am am la moo xam ne arab yi dañ koy dañuy wax ni euh, wér gi yaram day mbaxanam wurus la mu nekk ci boppi ñu wér xam nga kan moo koy gis ñu wér waaye ma ne dama wax ne Sénégal dañoo am jàmm joo xam ne xamuñ ko ñan ñoo ñan lañ koy laaj maanaam mooy waa Palestine ku leen laajoon tey lañ dugg ndax bëgg nañ caa génn ku laaj Moyen-Orient Syrie la fa xew ku ne dégg na ko ak feneen ak feneen ak feneen kon ñun bu ñu amee ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu jagleel ko prix bu toll nii Cheikh Alhaji Malick nekk fi ak mboolem kilifa diine yi nga xam ne lu fi mas a yëngu bu ñu jógee yàlla seeral ko nañ leen dimbale te jàppale leen waaye fi ma seen ñu jëm fa ak wax yu ñuy wax ñun AGEF dañoo contre loolu ñun dañoo gëm jàmm ñun la lañ gëm bañ ne ko ba suñu bopp jàmm lañ ko tudd yu bari ci réew mi rek coow yu bari ndax comme ñun ni yàlla bindee duñ dugg ci détail waaye day am loxo xam ne ku ne xam na waaye daal lépp lu génn jàmm ndax sëñ Tuubaa dafa am lu mu yoo xam dana li koy maye mooy da nga koy yéene wan wi waxul wafaal wala sim taslami takun mukarraman rumilon wala bi kalimi boo bëggee jàmm ne ne yii mooy tax nga mën ko am da ngay yéene jàmm mooy sax biir xol bi doo ci ëmbal benn julit lu dul jàmm te loolu xaddisu la yonent bi wax kenn ci yéen du gëm yàlla feeg lim yéene boppam yéene wu ko moromam ku xëy ku ne war nga xool loolu kenn bëggul ku la fenal kenn bëggul ku la tuumaal kenn bëggul ku la wax lu bon kon bu ko def kenn mu ne wan wi boobu mooy yéene booy jëf ndax mu ne damaa yéene jàmm booy wax di wax ay moo tax mu ne danga koy yéene di ko di ko wax booy wax tey yéene ak wax doyul ndax mën ngaa wax jàmm ba ñëpp dégg ko nga dem def nga dem def lu bon moo ne da nga ci teg wafaal la wax ngay jef jàmm waaye waxuñu le nga def jàmm tey bu subaa nga bàyyi ko ni nga defee jàmm tey bu subaa situation bu la mën a fekk da war a jëf jàmm wala zim da nga koy saxoo